sëñ Modou Fati xarit doomi Serigne Touba ye ak sa baaya ñëpp a ngi naan Cheikh Modou raw na gaaya Cheikh Modou Fati xarit baatin ba banu ko sol solal ko leeri Bamba. jërëjëf Serigne Gora kon noonu mu ko waxee rek bis bi dafa nekk bis boo xam ne Serigne Abdou Lahad moom Serigne Modou Fati xarit moo koy woote fële ci Daarul Mohin mu nekk àjjuma ñaari fan ci weeru mars bis boobu nag ndigal li ma ngi ko woon ci. ki nga xamne moy khalifa serigne ma samba di ñew di dox ba ci eh, ci mom ba ci fi muy ñen fukelu at mu diko magal fofu ci daru Muin serigne Mustafa mi nga xamne moy khalifa serigne ma samba nek ci kanam njaboot gi ak serigne Cheikh mbake mi nga xamne moy khalifa serigne Modou Fati khari bis bi nak aljuma lay doon ñaari fan ci wéru mars kon nak fi ñu tok ñi ngi tok ci kanam ki nga xamne moy Cheikh abdullah Lahad da ngeen deg ñi nga xamne ne fi jël cadeau muy serigne murtada Amar ak serigne kalle sen serigne Mor ndjay ak sëriñ Ahmadou Ly ñëpp danañ jël kàddu wax ci li nga xam ne mooy bis bi su noppee danañ leen waxal li nga xam ne mooy daayira yi nga xam ne sëriñ bi woo na leen ci bis boobu di daarul in kon ñu jébbal kàddu gi ki nga xam ne mooy sëriñ Mourtada Ama xam ngeen ni bu ngeen gisee jataay bi xam ni ñu ngi dënmal bis bu màgg bis bu tedd bis boo xam ni si mii moo koy amal di ci ñaanal waajuram bu sell wa muy sëriñ Modou faati Xari xam ngeen ni buñ nee sëriñ Modou Fati Xari kenn la woon ci njabootu ma Massamba Cheikh Massamba doon koo xam ni lislaam du ko fàtte yoonu murid du ko fàtte ngir ak jëfam ak ab taxawaayam ci kanamu Serigne Touba mu doonoon ko takkoo ak Serigne Touba mus a tàqalikoo ak Serigne Touba bi mu feeñee jamono ba bi ni Serigne tubaa di demee ci géej gi ma sàmba tàqalikoo ak moom bi Serigne bi nekkee gànnaar nekkoon na fa kon nag ab taxawaayam ci yoonu murid kenn ku ne ràññee ne ko moom ma Massamba ba Cheikh Ibrahima Diop Almasari di wax ni xam ngeen ku déggoon arab la moom Cheikh Ibrahima Diop Almasari moo wax sëriñ Masamba ni bu woon ak sëriñ Touba de yow yaay gën ci àdduna ci jamono yow Cheikh Masamba lawlal xaddiim imaamul arsi qudwatina la kaana afdalu ahli arsi kullihim rawatina kon lim liggéeyal sëriñ Touba bëri noonu rawatina xasida yi sëriñ Touba yi nga xam ne njariñ la te képp ku bëgg a jariñu da nga dem wuti ko xasida yi doy na sëkk sëñ Masamba moo ko maas te xasida yi bëgguñu rek sëñ ma bëggu leen a maas maas leen xasida yi ñoo ñëw ci sëriñ Touba sàkku sëriñ Masamba maas تفاخل أفادي لأهل الجود والكرم مظام مباكي كثير العلم والحكم taalibeem ba sëñ tubaay magam mooy sëriñam mooy léppam kon nag kooku nag képp koo xamante ni si kenn nga ci njabootam muy sëriñ Modou Fati Xari nga xam ne docteur yoon wi la woon fajkatu aaja la woon moom Modou Fati Xari 1978 la genn aduna mom serigne Modou fatih xari ñu bari di ko ba legi ndax njariñu julli won woon ndey julli won mom serigne Modou fatih xari kon nak si ablaat mi eh, di kenn ci njabotam di wote bis bobé muy ñaari fan ci wéru mars ñi ngi ñaan bu baax suñu borom def ñu ag ci ci jàmm alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñi di leen ñaax ci li nga xam ci dañ ko bok te mun ñu ko seddo muy suñu jëm ju tedd ji nek suñu ginaaw di Cheikh abdullah han mbake ci wote bu réy bi nga xam ci ne at mu jot mi ngi koy wo ñu di wuy ci ñun talibé foofu lañ jëmee suñu kàddu fas yéene faa soññi mbokk yi nga xam si dañ koo bokk ñoom muy ay taalibe ñi ngi waajal bis bi le 2 mars bi ñu jëm képp koo xam si yàlla dafa dogal nga nekk taalibe si Abdou Lahad ñi ngi la ci woo bu baax a baax comme ni nga xam si noonu lañ daan dégganteeg yéen ngeen ñuy wusi ci réunion yi ñu koy ànd ak yéen lépp di rafet ñu ngi leen di woowaat ñu gën cee góorgóorluwaat bu baaxa baax jokkoon nañu ak sunu président léegi nii yaramam dafa xaw a sutaante loolu moo tax teew ci jataay bi waaye ne maanaam xelam ak xalaatam lépp mi ngi ci jataay bi xamal nañu ne ajuma bi nga xam si ne moo topp ci poroxaan danañ ko amalaat réunion fii ci euh, kër sëñ Abdou Lahad Mbacke nga xamante ne si ne danañ waajal li nga xam si ne maam mooy rosi yi képp koo nga xam si ne waroon a dagg rosi te daggoo rosi ci jamonoy réunion yi ñu ngi lay woo nga ñëw ngir dag rosi yi ba ñu mën a def li nga xam si ne mooy suñu euh, programme ngir dem daaru muyin le 2 mars nag ku ne xam na ne bu masaan a jub si dañuy daal di ub kër yi juróom benn fan danañ ko am ndax danañ fa jiitoo bis bi ñetti fan am fa yeneen ñetti fan yoo nga xam si ne dañuy toppatoowaat bagage yi ngir indiwaat ko fii ci Touba Touba Mbacke la commencé ca waañ wa ba ca biir kër ga ba ca baas ba ca pénc ma kenn ku ci nekk fa nga xam si ne yaa nga fa daan taxaw ñi ngi lay soññ di la ñaax bu baax a baax wutal nañ leen ay bats yoo xam ne teg nañ ko ak la nga xam si ne mooy programme ba nga lijjanti dana la jox poste boo nga xam si ne soxla na la bu yegsee dana xam ne kii kat ci programme wu liggéey bi ci la bokk mu diisoo yow ci la nga xam si ne loolu la soxla kon ñu ngi woo góor di a tëj kër yi te def lépp suñ xalaat bépp maanaam ci euh, daaru muyin kon wasalaam. di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam bu ngeen déggee kàddu yi xam ne la daan am moo jub seeti màggal gi nga xam ne sëriñ Abdoulaat moom sëñ Modou faati Xari da ko daan defal way juróom wu tedd wa sëñ Modou faati Xari màggal googu moo dëngmal si waat nu nekk ci waajtaay di ko waajal bis bi nak mi ngi nek aljuma le 2 mars te daru Muyin ñuy soññi mbollem taalibe yi yu goor yi ak yu jigen yi di soññi magni di soññi ndaw ñi di ñaan kep ñu daayira bi nun ñëpp nu gëna takku waat gëna laxasaayu waat te lu ci ba magal gi mel nu musta mel yi nu wessu won rek magaluk ren ji gën ko aw yoon ndax màggal gi kat bu fekkoonte ne nit la ñu ne mat na sëkk ndax nit bu demee ba am ñeent fukki at nee ñu xel ma mat na sëkk lu mu xamutoon dootu ko xam lu mu mënutoon it dootu ko man màggal gi nag dem na baam am ñeent fukki at kon nag ñeent fukkeelu atam bii nañ fexe ba màggal ko màggal gu moderne goo xam ne gi day mel noo xaye musu koo mel eh, noo ngi soññ nag mbooleem taalibe yi tàmbalee ci eh, daayira eh, bii nekk ci Touba ci gaar bu mag di Touba Limameskouni di soññi daayira daaru karim bu Touba Limaskani di soññ mboolem fédération ba fa ne aju ci daayirab Touba Limaskani ba nekk daaru karim maa ngi soññ ñëpp njiit la di mo sëñ Moulay Diagne ak sëñ Mor Diagne ak Abibou maa ngi soññ mboolem koo xam ne kii membre nga te bokk ci daayira ya ñoom ñëpp nañu maasee mobilisé wu ànd takku te waaj fas yéene dem daaru muyin magal magal gi magal go xaye gi dana mel no xaye musuko mel serigne Modou Fati Xari jarnako ko ndax jàmbaari l'islam la won dara ru ko won luddul jaamu yalla ak liggéeyal serigne Touba ak xettali bindiif yi képp koo xam ne ki nga ak mom jariñ na la wala mu jariñ sa mbokk ko xamne ki na jamon jamon jamonoonte nga ak mom dem nga ba sa bis mu fajal la ko wa ila mu fajal la ko fajal ko sa mbokk kon nag ñu ngi woo ci bis boobu góor ak jigéen mag àndoo bàyyiwuñu fenn fukki région fukki région yi ci Sénégal yëpp ak ñeent bàyyiwuñu benn région ñu ngi woo mboolem tariixa yi bàyyiwuñu benn tariixa rawatina yoonu murit rawatina nag kër sëñ Massamba rawatina kër sëñ Modou Fati Xari euh, di soññi magi taalibe yi di soññi it euh, taalibe yu ndaw yi di soññi góor ñi ak jigéen ñi ci njiitul sëriñ Abdou jëng sëñ Abdou Dieng nanga nga soññ mboolem koo xam ne kii rek yaa ngi ci kanamam di njiitam na nga soññ ñëpp ñëpp ànd mobilisé wu ñu dem daarul muyin màggal ko màggal goo xam ne gii dana mel nu musa musta mel wasalaamualeykum wa rahmatullah di jiital ci siyaar bi sunu sëriñ bii di Cheikh Abdoul Ahad di ñaan sunu borom guddal aw fanam te dolli ko ak wér bis bi nga xam ne bii moom la ñuy woote mooy bañu daa woote rek ki nga xam ne kii moom lañ koy wooteel te di ko defal ñaan mi Cheikh Modou Fadi xër wuy si ko jar na ko waaye kii ko woote itam maanaam wuy ko da koo jar ndax day taalibe suñ tubaa gi nii ku góoree gi nii ku jullite gi nii ku bëgg ab taalibe ngi nii kon ñoo ngi ko ñaanal suñu fan aw fanam gudd bu baax a baax a baax ñoo ngi soññ itam suñu mbokki daare alxuraan yi ndax ñun loolu mooy li nga xam ne mooy suñu waar ci màggal gi nañu ko fonk nañu ko daa fonk daara yëpp nañu daje darul muhin nañu jàng alxuraan nañu jàng it nu ñu tudd yàlla nu nañu wax laa ilaha illa lu mu gën a bari moo gën téere boobu nga xam ne sëriñ bi bëgg na ko lool muy woo wasay naa leen saana fonk na ko te fonk na ko itam ci màggal ga ñu di ko fa biral bu baax a baax ñoo ngi séntu ñëpp nag bépp sin daara boo xam ne bii nag màggal gi ñëw ne te nga bëgg a ñëw setteer bu la fekkee fii ci buntu kër gi dana ñu la yóbbu buñ jàngee ba noppi itam fas yéene nañ leen indi ci coobare yàlla te daan leen indi bu soobee yàlla kon ñu jàppee ko noonu ñoo ngi sant itam suñ mbokki taalibi tër bi yi nga xam ne buñ demee Daaru Muhin ñoom lañ fay fekk ndax buñ demee ñoom ñoo ñuy dalal lañ fa war na liggéey lu ci bari buñ demee dañuy fekk ñu liggéey ko te ñooy ànd ak ñun ci base bi ànd ak mun ci liggéey ba nga xam ne ñu toppatoo bagage yi ajaar ko kon ñoo ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm di leen ñaan ci nu borom barkeel seen liggéey ñoo ngi leen di sant bu baax a baax leen gërëm. kon mbokk yi bis baa ngi noonu. ni nga xam ne sëriñ bi nee na mu ngi koy woote jiital ci woote bi nag ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ Touba ak mboolem këri lislaam yëpp. xalif général yi nekk ci réew mi yëpp sëriñ bi nee na mu ngi leen di woo ak njaboot gi ñu jaboote waaye di woo mboolem ñi mu bokkal kër maam maaram di woo mboolem ñi mu bokkal ci biir ëtt sëriñ Touba yi ñi nga xam ne seeni waajur dañoo àndoon ak sëriñ Touba ba jot ngërëm nee na ma ngi woo seenu njaboot ñoom ñëpp bàyyiwul kenn waaye di woo nag daayira yi nga xam ne ñoo aju ci moom te jox ko seen bopp te yaakaar ko ci lii nga xam ne mooy liggéeyal sëriñ Touba mu di ca woo yëpp ñu ñëw teew si daayira Dakar daayira Louga daayira Njagañaaw daayira jurup daayira paccar daayira Mbuur ak daayira Jiwaalo ak daayira Thiès ak daayira Njala Njalaasem ak daayira Darmo ak daayira Mbay Jaalo ak daayira Géejawaay ak daayira Sànnoosi ak daayira yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew muy daayira Italie te Serigne Talla Dieng jiite ko daayira Espagne Serigne Omar Dia jiite ko daayira Belgique soxna faatma Thiam jiite ko ak euh, Njooñ Guèye euh, daayira Argentine Serigne Talla Lo jiite ko ak daayira Brésil sëriñ Pape Fall Diop jiite ko daayira yëpp sëriñ bi nee na mu ngi leen di woo bëgg ñëpp di teew si foofe ca daa ca daarul mu in daaru mu in nag mu ngi ci eh, yoonu xel koom muy sàkku képp ku fa ñëw sëriñ Touba faj say aajo saa iran wa baatin wasalaamualeykum wa rahmatullah